lislaamaa ngi jooy jugleen daalal ko lislaamaa ngi suux jugleen suuxat ko ni yàllay sabuur doo sàkku ngaramam yoneen sa soppe auzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yashir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yi ñi bokkal yàlla noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal jàmmi yàlla ak barkeem yërmandeem ak xewlam suturaam yàlla na ko buur bi tabaaraka wa taala wàcce seen kaw te wàcce ko seen kaw njaboot tabaarakallaahu yéen a ànd ak Abdoulaye Ndiaye ci Mouslih TV seen émission bi ñu leen àndil mardi bu jot ci waxtu wii tuddee ko li fi réew mi macha allah ñoo ngi leen nuyu di leen ziyaara sunu émission bi passé ñoo ngi woon ak yéen ci mbaax tabaarakallaahu tey nag ñi bëgg a dikk ak yéen ci wenn taalif boo xamante ni ni sunu mbokk Ahmadou baas ci moom lañu ko jëlee muy taalif bu am solo bi mu def ci woy juram def ko ci woy jur waaye nag li ma ci yitteel rek mooy jikko gi muy waxtaanee waaw ndax jikko dafa am solo ci doomi aadama jikko dafa am solo ci doomi aadama ndax euh, boo xoolee euh, taalif Ahmadou Bass boobu ma lay wax fa tabaarakallaahu yaa ngi dégg fi muy waxee naan sunu yaay booy laan sëy jikko nee na ku ci jël benn doom jikko bu ñoree ñépp seet si ko uti leen suuf sëriñ ju ko faru leen tax faraasu ci tabaarakallaahu li ma ci gën a yitteel paas bi nga xam ne suma yaay booy du xas du jëw du xuloo it du wax ca kaw mu ne di teral mag di teeta ndaw te du xeeb loo ko jox mu naw te su meree muñ la koy faje kon bu ñu taxawee ci lool rek mooy jeg ju nekk rek ci biir néegu sëyam war naa làmboo jikko yi war naa làmboo jikko yi mooy du du xas du jëw du xulu it du wax ca kaw waaw ñëpp xamee ndeysaan ku ñëw ci ci kër gi rek xam na jabaru diw gi de moom fa tabaarakallaahu ku dal la jabaru diw gi de macha allah doo ko dégg ci doo ko dégg ci coow doo ko dégg ci xuloo doo ko dégg ci naka sulul noonu moom moo ci noona rek waaw nekk jeg goo xam ne ci biir kër gi jéegu puso la du du tàqale fa tabaarakallaahu lu dul ni macha allah day boole li nga xamante ne moom mooy diggante yi di leen ñëw loolu la ñuy doyee jéeg ci biir kër mu ne du xulu yi di wax ca kawaay di teral mag di teral mag di teeta ndaw dañuy wax ne ñaar ñi duñu fàtte mooy mag ak ki nga xam ne moom mooy ndaw xale la muy doon doon doon xale loo ko defal ci teraanga du ko mës a fàtte ci dundam du ko mës a fàtte ci dundam lu mu màgg màgg màgg day màggaale ak loolu ndax dina xam fan nga ko féete woon waaye nag di teral mag mag dañu koy teral mag doonu koy wekk waaye rawatina na macha allah jigéen ju nekk ci néegu sëy fa tabaarakallaahu di sëy kon war nga làmboo jikko yi mel ni beneen gi mu ne bu guddee ñëpp dem tëri bu guddee ñëpp dem tëri mu ne waaye du ko jik du ko tee jug di kër kër yi waaw fa tabaarakallaahu moom daal lii lii tax kër gi jàkk lii tax fa tabaarakallaahu njabootam nekk ci yoon wala ay njabootam bañam rek nee na jéggoo ko ci leneen bu guddee ñëpp dem tëri du ko tee juddu këri këri waaw mu ne bu ayee nag ñam ba day bari ndax léeg-léeg boo nekkee ci kër gu mag ku nekk di fa sëy léeg-léeg am na ci koo xam ne ne saa yi bu aye dangay xam ne tey jii diw moo ayee bisu tey ji diw moo ayee parce que ci ci xër gi muy xër ci tibb tibb yi muy tubb macha allah waaw nga xam ne ni njóobee ni moom yu mel noonu rek lañ bëgg waaw dañuy wax ni duñ duñ duñu suurub ceeb duñu ndox tabaarakallaahu kon yu mel noonu am solo bu guddee ñëpp dem tëri tu ko tee jug di kër kër yi mu ne waaye nag bu ayee ñaw ba day bari ku ne jël kopp yee jëri te bu yàqee ñëpp fay daje am na jéegoo xam ne ni bu bu ayee bu xasee ba yàq ñëpp ay daw ko bi waaw ndax siis na yéenewul kenn dara jeg joo xam ne ni sa rëg set rek lay woddu tànk ya xar na dégg nga mam mel na melokaan goo xam ne ni présidentable ci kër yate bi bu njëkk ba sax dañuy wax ne tànk tànk góor moo daan ñagas waaye nag bu ñu demee ba jéeg tànkam gi di tànkam daal di ñagas di coqat yi mat laa di xotti darab di rooseli peinture loolu gàcce la waaw loolu gàcce la ci biir kër kon am na ci ñoo xam ne bu ñu xasee ba yàq sax yàq yàq rek ñëpp daw nañ parce que tellement ñëw ak accueillir gan moo tax ndeysaan ndaw sax ba ba mu yàqalee euh, borom këram añ boroom kër gi daal di koy gis kanam géej ngi saas tàng jër mu ne ko man de lenn lenn lenn rek ma jaaxal fii laa war a lekk wala ci kanam gi laa war a lekk. ndax ñaar yëpp ay saxaar xaw ma ci ban laa ci war a taam kon jéeg dëgg dafay nekk jigéen joo xam ne dafay pare di sëyee naa te bàyyi guma noppil noppi naa bul dem toog naa yére ya lal naa añ ba taaj naa fa ma woon dem naa waaye demal dema guma yére ya fóoto añ ba taala guma lal ba lalaguma guma te guma guma nag bu bari dafay indi duma ah góor gu xam nga dañ ne ci euh, dóor dóor dóor ci sëy sax du du solution waaye nag bu demee ba góor di dóor soxnaam amatul solution comme ni ñu koy waxee kon nañu xam ne ni jigéen jikko yi nga xamante ne ni Ahmadou Baas wax na ko euh, fa tabaarakallaahu taalifal ko yaayam jooju mooy du xas du jëw te du xuloo yi du wax ca kaw di teral mag di teeta ndaw te du xeeb loo ko jox mu naw gis nga xeetu jikko yooyu nga xamante ne ni euh, sunu sunu sunu sunu yaay ji sunu yaay ak sunu mam ñi dañ ko daan jikkowoo ci biir kër gënoon jikkoo ba nga xamante ni fa tabaarakallaahu ñëpp a leen di naw ci loolu kon nañu fexe ba delloo ci mbaax ñu xam ne ni euh, sëy ni gone yi di sëy léegi dafa dafa dafa dafa jéggi dayu waaw koo xam ne boo demee da ngaan damay xëppanti acide waaw damay xëppanti acide damay dem dabe ji waaw ku ma wax ma xuri ko loolu du jeeg loolu gàcce la da fexe ba ñëpp miin la te miin miin miin fa tabaarakallaahu sa mbaax sa biiw ba boo gémmee kër gi sax euh, tukki sax nit ñi namm la loolu ku ko sax ci sam néegu say kenn du la yàqal say xalanduuti mais li xew ci jamono tey la kenn xamul la mu doon la kenn xamul la mu doon ah man de la ma yor def fa tabaarakallaahu ah ndeysaan danaa ndab lu nekk kubéeram de waaye dama ma yor ub na ma ràpp kon yooyu am na ci solo moo tax ndeysaan góor ga góor gu baax ga waxoon soxnaam sa ne ko euh, la mu waxoon soxnaam sa rek laay wax sama soxna dama képp ku may déglu rek fa tabaarakallaahu jëlal jëlal euh, si ma def sama turu soxna rek nga def sa turu soxna def na ko maa foog kayit daana xaar ma ut fi aw kayit wax ci sa jukko ay bayit def naa la ngay sama xarit ko mel ni yow ma baax ci man maa bon jikko ta tàng lool nga am sa yarta seddu lool ma sikk it te ko xool rek mu jigéen jikkoy jigéen ña gën mu ne ko am am am am taxul nga ut si ma aw tur taxul nga ut si ma lenn taxul nga ut si ma lu yàlla ak cofeel ci man loo am ci or ma jël ko jaay faj sama soxla ngay ko teey du mag te du ndey tu du yaay ko xam sa coono fii ci man jugoo duut ay jabaraan xoojoo lu bon jox ma ma naan jox nga ma cër xam ki ma doon ku ku baax du sa mbon ñu ko jugoo di xëcc ay xarit yam nga ci man def ma xarit di jëf ndigal ni ab murit moo tax dinaa la sant man tabaarakallaahu mbokk yi daa mel ni lu ñu amoon ci waxtu jeex na tabaarakallaahu xam naa dañuy daggan dañuy daggani foofu taalif gi rek ba mardi gii di ñëw macha allah ñu yeggale ko ak yéen lépp lu ci jub rek ci yàlla la lépp lu ci dëng ci ñun la defar rek mooy li ñu tax jog jóg bu ñu ko defee kër yi jàkk neex am bànneex ndax nag xale yi nga xamante ne ñoo ngi taxawaalu di agressé ci mbedd gi nekk nekk naka sudul noonu ñi nga xam xamante ni baax nañ tey nekk ay imaamu ay imaam ay ustaaz nekk ci yoon gi di jàngale ñoom ñëpp ci kër la leen waajalee waaye nag fa tabaarakallah ku ci nekk rek na sa nday liggéey rek loolu nga wane ci biti kon nag résultat wu doom résultat wu yaay dañuy wax ne doomoo koy wone ci biti kon fa tabaarakallahu ñoo ngi leen di tàggu ba beneen yoon salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. lislaamaa ngi jooy jugleen daalal ko lislaamaa ngi suux jugleen suuxat ko jooy jug leen dalal ko lislaam a ngi suux suux jug leen suuxat ko ni yàllay sa buur doo sàkku ngaramam yoneen sa soppe